هجاني الحليم والخبير وجادني الواسع والكبير بلاني جميع yaakaar ne war nañ cee mën a jaruñu ni ko Serigne Cheikh naa waxee bu fekke ne sëriñ bi lim andi won lu leer ni la ñim ci yaroon ñu ñu xam lañ lim fi bàyyi ci ay mbind ak waxit lu leer la waaye and ak loolu am na ñoo xam ne dafa mel ne lëndëmal moo leen neex su boobaa nag dana baax ñi xam di dund yëf yi ñoom fàttali nit ñi li xewoon lan la fi boroom bëggoon jëm fi fan la li yahlika man halaka an bayina wa yaxya man xaya an bayina loolu laa jàpp ne mooy jox solo waxtaan xam nañ ne sëriñ bu mag bi radiallahu anhu bi muy nekk Mbàkke Kajoor moo ko way juram Maam Moor Anta ñoo fa nekk tarikh wax nañu ne 1296 japp 17 la mam mor anteseli tuxo patar ñew ñëw mbàkki kajoor pataar ma nga ci wetu njaaj ci wetu njaaj bi la joor nekkee keur amadou yalla la maam Mor nekkoon ak moom waaye niñ ko xamee daawul dëkk ci pays bu buur nekk doonte daan na jëflante ñoom di leen la ci diine waaye daawul nangoo dëkk ak ñoom ndax daara jim yor dafa déggoowut ak pays loola waral ba mu nekkee Poroxaan ba mu nekkee Saalum ñu nekk Ñoora moom mu nekk Poroxaan bi mu ñëwee pataarit Lat Joor nekkoon kër amadu Yàlla moom mu nekk pataar alxames ak ajjuma la daan dem di leen laabiire ci diini ak lañ ci soxla loolu waral mag ngi dañuy wax ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu li ñu xam ci fu mu mës a julli ajjuma mooy jumaa jee nekk njaañ tey boobu Sëriñ tubaa julli na fa ajjuma ay yoon di ànd ak way juram jóge pataar bu ajjuma ñu ñëw njaañ di julli si ba 1297 wala mujjug 96 lañ fa tuxoo ñëw Mbàkke Kajoor yàgguñu fa ñaari at jàpp ñetti at rek la Maamoor Anta Sali am Mbàkke Kajoor génn àdduna waaye fekk na taxawal na sëriñ bi ba samp ko ba daanaka li ëpp ci daara ji ci loxoy serigne bi la nekkoon sëriñ bi it mu màmmoor tàmbulee bàyyi xel serigne bi waye di won nit ñi ne len ku mat a xel mom ci boppam jàngale na fofu ay téré yo xam ne sëriñ mag bee ko wax nañu ne mawahibul quddus mamour ant moko ko si ndam abdourahman kon serign be ko talif mu bàyyi mu yoron, ba jël téré bi serign bi talif diko ko bañu démé ba 1299 ci ben ga ni ko basirou net lé ci minan neena bisub talata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tam xarit 1299 ci la Mamour Anta Sali génn àdduna ci weeru décembre la kon 1881 ci la génn àdduna booba mbàkke kajoor niñ ko waxee ñetti at lañ fa amagoon ndax àll la boo xam ne kenn dëkk fa woon na ci li taxoon sëriñ bi jël mam Mor Anta Sële yóbbu ko deqale ndax deqale daf fekk boobu ma sàmba anta ceeboo fa la nekkoon ñu denc ko fa te ma sàmba anta ceebu nag moo doon jàngal maam Mor Anta Sële xam-xam moom ak sëriñ bu soobe jàngal na leen xam-xam ndax dañuy wax ne maam ma tabara way juru sëriñ am ma ma ma ma busa laay wa sax maam war am sëli ak sëriñ ma busa mam ma tabar lañ wax ne moo leen doon jàngal ak mam ball bi mu leen jàngalee ba mu sori mu yebal leen ngéeg faal ngéeg faal googee nag dafa mel ne fa lañ wëllu leen teeg ma sàmb anta jéego ba waral ñoom bi ñibbisee kenn ku ne jox ko sa doom sëriñ ma buso jox ko sëñ buusoo be mam balla jox ko ma moroon sëñ mu jàng ci ñoom xam-xam sëriñ Mouhamadou Bachir nee na dafa mel ni ci xam-xamu nax naxwu yaakaar naa la wax ne lañ fa